xas mi noonu lu ci ne dafa am lu lu muy jariñ tey doomu poften bii nii doom bii mu ngi nii dama koy bañ a dàgg di ko yàq doom bii tey bu nit ki amoon problème war a dem ci yoon war a layoo ji wala nit tey ne la suba soo ma fayul sama xaalis dama la yóbbu ci yoon wala nit ki la soo ma fayul sama xaalis suba dinaa la toroxal soo ñëwee dagg doom bi defar ko dem ci taatu géej gi saraxe am loo saraxe ci géej gi ñëw suul ko fa maanaam nit ki suur boobu lay noppee tudd ci coow loolu dara. ak lu coow li rëy rëy rëy rëy. ak coow bu mu mën di doon ci àdduna. ak lu mu mën di doon ak problème bu mu mën di nekk boo ko defaree ba pare suur boobu la ñuy mujjee tudd coow loolu. suñ sëñ Modou fi kaa bi toll fi dëkk bi toll fi réew mi toll kaa yu critique yi nit ñi di dund ku ci ñëw tollu ci kaa bu mel noonu bu ñëwee waxtaan ceeg yow mu leeral yoo xam ne lu yelloo ndimbal. problème ak foo mën di liggéeyee mu ne la suba dama lay dàq wala nga xalaat ne dañ lay dàq buñ doomu Poftan bi kese buñ ci liggéeyee loolu ba pare boo ñëwee suba leneen lay wax. wala moom mooy daw sax okolaat la kon garab dafa maanaam garab dafa bëri njariñ maanaam faaw nit ñi xam lan mooy garab maanaam xam lan mooy njariñu garab sëriñ yi koy def itam maanaam xam garab jënd garab maanaam garab mbir la moo xam ne buñ ko yombal nekkut lu yomb de comme li ñuy wax ni wax ji yomb na waaye liggéey ci lu sotti moo jafe. dëgg manam garab ñakul fayda rek ñew rek dag rek dem ki dem ñew motax suma déggé kuy jàngalé xam xam comme ça di jàngalé xam xam ni ni nan li day faj li li day lé def leen ko nit ñi di baxal di nan lolu man na duma né baxut waye man duma ko def man man suma ko sétané man duma ko def ndax lu bari damay gis ñuko ci bayyi té pourtant nit ñang ko jël diko def té damay gis lu bari ñuko ci bayyi manam duñ wax nit ki lim wara def pour garab gi duñ wax nit ki lim wara sékk garab gi ak yoy waaw xam nga yooyu lor doomu aadama te man bugg man chaque jour rek dama naan li nga xam ne bu doon man duma ko def maanaam du ma ko séq ak nit mm-hmm. du ma ko def waaw. sëñ Modou lan nga ñuy dolli ci Poftan su ko defee ñu ànd tàggatoo ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci TMP Events di ñu seetaan rawatina mbokk internet yi ku ci am xalaat wala noo ko gisee wala lan nga bëgg a laaj sëñ du Faye ngir buy defaat émission mën la cee tontu commentaire yaa ngoog ci suuf bàyyi sa xalaat su ñëwee dana ci dana ko topp ñu jottali ko ko su boobaa lépp loo xamante ni nii ab laaj la boo ko laaj suy defaat émission wéyal di ko topp dana la ci indil ak gindi ak ak leeral sëñ Modou kan lan nga ñuy tënkal ci poftan rek su ko defee ñu ànd tàggatoo. waaw lii li ñu ciy wax rek li ñu waxoon rek njariñ dafa bëri tey jii boo bañee nit ki tey am na ñoo xam ne mën nañoo ñëw bëgg ci yow dara nuyu la pour nga jox leen ko. mooy ñi naan dañuy yóbbu sam xel. waaw maanaam takk dara wala tari dara seen loxo nuyu la luñ la laaj waaw luñ la wax nga def ko poften gii xob yi da cee aay loolu soo ko xasee defar ba def ko téere takk ko nit mënu la def loolu ñi daan wax naan dañuy yóbbu ay awraag yooyu poften gii am na loo ciy defar nit mënu la def loolu yaa ngi dégg ba ci bëri ñuy dóor muy ñuy daanu maanaam poften gii am na ci loo xam ne boo ko defee sa ngemb nit mënu la dóor nga daanu nit am na mbër yoo xam ne bu ñu la jàppoon sa yaram yi day dee maanaam dootoo fa nekk so am na lu ci poften gi boo ko nit ki bu la jàppee gàllaaj day toj poften gi am na lu koy bisu altine soo ko jende ba defar ko ba pare nga xuloo nit ngeen xuloo mu tëkku la nga dem rek sangoo ko ñëw toog balaa mot cinq minutes ñu woo la tàgge la ko. déet waaye bu nit jugoon tey mu le xuloo ngeen mu tëkku mu day dem ci sëriñ te wona day dem ci sëriñ nga dem defar loolu ñëw sangoo ko toog balaa mot cinq minutes ñu te xam-xam boobu mi ngi fii sew lu wér la maanaam loolu lu wér la tey pël yi nga xam ne dañuy gëstu xam-xam poftan ak séeréer yi koy gëstu xam nañ li may wax ni ku ko ci dégg di nga xam ne kii li muy wax lu wér la te loolu lépp ci garabu poftan lañ koy jëlee mag ñi bu daan xeex bu njëkk du ñu xeexee ay yat ay jaaseek ay nangam wala ay dóorante da ngay gis ku nekk de moo tax da am na dëkk boo xam ne ndeysaan daanaka léeg-léeg nga gis amoon na at moo xam ne ñu bëri mën naa am mag ñu bëri faatoondoo parce que li tax loolu mooy suñ tekkonté rek kenn ku ne do ñemee laal sa morom da ngay dem def li ngay def sangu tok kee dem sangu tok ku ci njëkk laal sa morom rek am jafe-jafe motax mag ñi daaw ñu nangu di defante lu lu bon tay garab gi am nokoy gassé yoy sax jërul jërul egg ndax xam nga yu bëri manam secret la waye daal poften mom, manam limu man ci nit mo bëri té nit ñi dañ koy fayda poften gi tay bu saxé ci kër gu mu sax néew lu muy sax ci kër gu nit nga gis kër ga nek kër gu ndaw du nekk kër gu ndaw beneen ba ca teg kër ga day barkeel beneen ba ca teg kër ga seytaane du fa dugg maa nga fay gisit ay nit di tojante bopp wala di xuloo